asalaamaaleykum mbokk yi teel a àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci jumaadal ula muy weeru rakkaati gàmmu di juróomeelu weer caatum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaa bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ci weeru novembre caatum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent fukki fan ak juróom-ñaar bokkul ci li muy fàtte lim bu rafet la kon tey ca àllarba ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca daloo li ñu ciy teete rek wàccante ko moom àllarba mooy ku ca sangu wala ku ca fóotu wala ku ca tàggoo wala ku ca watu ñaanu bis bi yow yàlla mi aji dund ji te aji des ji maa ngi sàkku xettal ci sa yërmande yaa xayu yaa qayuumu bi raxmatika astaxiisu yaa bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ku sunu boroom namm ci moom aw yiw dina ko déggloo diine xadiis bi dëppoo nañu ci qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin muttafaqun alayhi waxtu julli yi suba waxtam dana tàbbi 5 heures 52 juróomi waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñaar tisba 13 heures 19 benn waxtu yu fukki simili ak juróom-ñeent takkusaan 16 ñeenti waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñeent timis

juróom benn waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñett yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin